rahmaani rahiim alhamdulilah bi seetaan rajim barke borom Tuubaa eh, ñu ngi lay ziare bu baax a baax a baax eh, ndongo li mi ngi wóyoo ci Modou Abdoulaye Ngom eh, di doom ci soxna Umu Kalsum Fay mi nga xam ne moom ngeen fekk si tey jii fii ci Touba Darou Manaan ci kër Cheikh Mamadou Fay Fetto Serigne Modou Fay Fetto ci kër xalifam di Serigne Maam Thierno Fay Fetto ngeen ñëw fekk si soxna si nag. ci liggéey bi nga xam ne moom la baaxoo amal ay at a ngi nii boobaak léegi yàgg na lool nañ ne boobaak léegi tout tànk lañu nekk ci daara ji ba nëga yàlla dogal ñu gis ko ci liggéeyub alxuraan ak bëgg ko muy loo xam ne itam ndono la ndax mën nañ ne keppaar gi ñu toog daara la daara la boo joo xam ni daara la ci fànn fànn bu ne ndax bi yàlla dogalee ñuy toj carrière bi sëriñ Modou Faye fii la nekkoon jiite woon mboolem taalibe borom daaru Moxti ànd ak sëriñ Modou Balla euh, daa dal fii ci kër gi nekk ci liggéeyu carrière bi ba jumaa ji sotti bi muy ñëwitam ci borom daaru Moxti alxuraan daa fekk suñ borom defal ko ci tawféex euh, mu xamal ko ne ko daara juuma yóbbu maa fay daq alxuraan maa fay mën ci alxuraan waaye maa fay mën ci liggéey ba itam dem ba donga ya dikk ne borom daaru moxti da am na lum la ci boole ndax moom yàlla dogal na yeneen da feeñ muy ak tab tab nag day dellu ci loolu muy loo am def ko ci alxuraan moo tax soxna si gis nañ ni dara du yitteem lu dul alxuraan du itiwul ay takkaay itiwul ay xew waaye alxuraan rek itiwul politique itiwul len ndax bari waane ci loo xam ne yomboon na ko ngir mu am ci tànk wala lu nekk ci àddina waaye muy alalu njabootam muy alalam lépp rek da koy delluwaat ci alquranul karim loolu nag euh, ndoonay waajur yooyu la euh, ndax bu fekkee ne Sëriñ Tuubaa daf noonu defal tawféex moom ñaari waajuram yi ko seq yëpp di ñoo xam ne ñooñu alquran lañ muy Cheikh Aboubacar Mbaye euh, nga xam ne boo ko toppee dem ba ci soxna Diop Mbàkke mi nga xam ne maamam la te bokkoon ci waa kër borom Tuubaa di waa Barsàq yi ak Cheikh Mamadou Faye ñaari wàll yëpp di alquran loolu nag kon mën nañ ne liggéey bi tawféexi Sëriñ Tuubaa la liggéey bi Sëriñ Tuubaa la bu muy wéyal waaw noonu la. Mm-hmm. ndax mën ngaa dellusiwaat ci koor gi rek uh, liggéey bi koor gi moom liggéey bi ni muy demee mooy comme ni ñu ko waxee rek ab yàgg na lool ñu koy tàmbalee ci xëdd buñ nee weer wi feeñ na ci la soxna si di togg ay xëdd eh, ñu yanu ko moom guddi guddi nañ ko yanu yi ñu mën a teg ci taxi ñu teg ko ci ay taxi yóbbu ko ci daara alxuraan yi noonu lañu koy defee ndogu yi nag kenn tax koo jóg lu dul alxuraan muy dongay daara yi ak sëriñ daar yi. ndax nemmeeku nañ ni ñun ñi jaar nañ ci keneen ak keneen jaar ci boo demee ba mm, weeru koor bu jotee léegoo léeg am na ci njaboot yoo xam ne danañ guddee lool génnee seen ay xewal ñam yooyu nag dongoy daar yi dañ koy ittiwoo dañ koy soxlawoo euh, waaye neewaa na dong bu mën a bàyyi ba une heure wala wi nga jóg di yi wala ngay jëli sa potum ndey daara donte sax moom soxna si fexe woon na ba mboolem waa gox bi ak ñi ñi nga xam ne nangul nañ ko yëpp te mu ànd ñoom liggéey bi ndax ci fàttali jëwriñ la ci nday daaray Touba yi fexe woon na ba ku nekk am am koo xam ne da nga koy tibbal nga xam ne nday daaraam nga da nga koy tibbal waaye li ci yees mooy bu fekkee dem nañ ba ci weeru koor gi dana jafe lool ngir dong bi guddee googu muy mën a jëli bool bi mu xalaat ne kon faaw mu fexe ba dongo yi moom dootuñu ittiwoo di jëli reer boobu fexe bu nga xam ne ndogu yi dana teel a dem ci ñoom bu ñu noddee timis ba noppi mu noppi ñu mën leen koo jébbal waxtu woo xam ne xiif nañ mën a xewlu ndax ab donga moom bu fekkee kuy woor la bëgg a bàyyi ba min wi mënta jëli leer reer ba ba xaw a guddi nga xaw a doy waar loolu moo moo moo tax euh, soxna si xalaat ne daal xiif boobu daal war naa mën a denc ci daara yi mu tàmbalee ko nag ci weewu tànkam di ko def benn mbana ba fi ne nii ndax ci benn mën a la ko tàmbale woon ci xëdd euh, ba ci reer ba fi mu ne nii muy yokk alhamdulilah. Mm-hmm. Mm-hmm. ba mu ko dalee def euh, yàgg na yàgg na lool boobaak léegi. ndax euh, mën nañ ko lim ci ay at yu takku naa dal juróom-ñeenti at yi moom. wala juróom-ñett dana dana dana rafet ci bi mu tàmbalee taal mbana yeeg yooyu. waaw lu ko jiitu nag amoon na yeneen yoo xam ne ndax bu koor gi dimanche bu ne. day def dimanche bu ne mu def ko añ. dimanche bu ne mu def ko añ yóbbu ko ci daara alxuraan yi itam. Mhm. naan la koy defee. waaw alxuraan day li nga xam ne moom lañu ñu digal ci ñuy dimbalante ci sunu biir. dafa doon loo xam ne eh, jëf fi sabilillah dafa doon lu am solo waxuma dongab daara waxuma kum mënti doon rek eh, alxuraan daf ñu digal. ñuy ñuy ñuy dimbalee ñuy dimbalante suñu biir boo gisee asaka li tax alxuraan indi ko lu dara lu dul loolu ndax nit yi bu fekkente ni kenn ku ci nekk fexe na ba la nga xam ne moom la am mu di ca yëkkati eh, di ko delloowaat ci ñi nga xam te ni ñooy jaami sunu ñooy jaam yàlla yi loolu day doon loo xam ne bu yaatoo day dem ba daanaka kenn dootu tumranke ndax asaka sax lu sunu borom digle la loo xam ne faw dafay génn waaye tamit lu ko jiitu nit ki war naa fexe ba alalam la mu am kem kattanam muy génnee eh, di di di ci dimbali nit ñi eh, te itam weer wi dafa doon weer woo xam ne wax nañ ni ku baax ki Serigne Touba. suñ saan di séntu weer wi da daan ànd ak mbégte ak cawarte goo xam ne lu waay dikk dikk ko jàmbat wala nga di ko wala nga di ko bëgg danga naan naa bàyyi ba weer wi feeñ wala ba weer wi feeñee ci lay gën a gaaw day ànd ak mbég moo xam ne ànd ak tab goo xamante ni ngir di ko teeroo weer wi diirub weer wi nag noonu lay dundee ba ni ni mu koy gungee nga xamante ni boo xoolee xasida yi nga xamante ni daf koy daf koy daf koy teeroo weer yi di ko gungee weeru koor loolu ca Gabon fii ci réew mi mu doon loo xam ne noonu la daan dundale weeru koor noonu itam la ko alxuraan diglee euh, kon burut weeru koor itam nit ñi danoo war di wéyal jëf ju ni mel muy di dimbalante ci seen biir euh, di jàppalante ci seen biir rawatina nag ci alxuraanu karim dégg lool ci nit ñi defee am na solo ndax feeñal lu baax moom am na solo ndax nit ñi royante rek moo am solo mm. te feeñal lu baax dina tax ku bëgg a def lu baax xam ko roy ko mm. kon ñoom di ci sant bu baax mm. di ñaan mu Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te wér mm. yàgg ci ginnaawam mm. ci barke Xaadimu Mustafaa mm. di wax ne alxuraan moom bu dee am na kër Tuubaa mooy këram ndax foo xam ne mën nga faa wàññi ay junni junniy daara di fa wàññi ay junni junniy yu ñuy xëy di wàcc par bis te suñ borom ni alxuraan mooy kennu jamono ku ko jàpp-jàpp nga ci man kon ñun ñëpp ci war a jàpp te sëriñ moo waxaloon boppam ni alxuraan suñ ko dee jaay jaay nañ ma ko buñ ko dee maye may nañ ma ko buñ ko dee lebal lebal nañ ma ko moo waxoon ni ñooñ alxuraan ñooy sama waa kër moo waxoon ne it li mu gënoon a bëgg ci àdduna mooy dëkk Tuubaa di jàngale alxuraan ak di ko ja di jàng ka jàngale te suñ borom defalu ko loolu ci saayir yàlla defi moo mat ñu ñëw fii ci Tuubaa war ko fee nekkal dañ ko fi war a nekkale mooy fas yéene jëfe ndigal yi bàyyi tere yi te téyel ko alxuraan bu baax sëñ Abdou Lahad dafa waxoon ne lu ma ne dan rek muy jëfe sëriñ bi mën fu ñu ko dem ci bëggam muy alxuraan loolu yóbbuñu ci nag mu nekk obligatoire ci jullit yëpp nag ndax alxuraan moom sunu borom moo ñu ko booleel fii ci àdduna ñu war a ànd ak moom ba keroog bis penc te war cee taxaw taxawaay bu rafet muy di ko jàng ak di ko jàngale ak di taxaw ñuy jàngale ak di taxaw kiy jàng moom xanaa di sant ñëpp nit ko tàmbalee nag ci sama njabootu bopp gi dëkk ci biir kër gi ndax woor ba ngoon boole koog di tog ay mën dafa metti te duñ son duñ taay waa koñ bi tam ñëpp dañuy ñëw di jàpp ci liggéey bi mbootaay gi fi nekk itam barki démb bu yëkkati nañ cinquante mille jox ma di mbootaayu jigéen ñi kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax sama njabootu bopp gi tam kenn ku ci nekk lu mu am daf ma koy jox ndax xam nañu lii rek mooy sama bëgg-bëgg ñu taxaw ci nu cee sonn lool ak sama ay goro ñëpp nag jàpp ci wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk di jël sa alal di ci def waaye nag yàlla la ñuy defal te suñu borom moom ku koy defal am na pay waxuma laa nag dëkku Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne borom loolu rek lu bëggoon moo taxoon mu sanc ko ndimbalante ak taxaw dongo yi kon ñoo ngi leen di ñaanal ci kàttan suñu borom tabaaraka wa taala ba dara ji alxuraan lépp diiw ak xéewal kenn ku def sa dërëm walla saw ñaq wala nga romb ñu di dem doo gis ko yal na sa jéggal say bàkkaar te wéral la may la jaamu defal la xéewal yu kawe sa jot.